ahousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu fas yéene ñëw ci sunu ñetteelu xaaju waxtaan wi ñu sumbuta ko ci jëmm ju tedd ju sell ju mat ju matale ju baax muy Cheikh ma Moustapha al Karim yaakaar naa waxtaanee woon nañ ci parcours lu am solo te la ci jiitu mooy askan teg teg juddu teg ceeb njàng teg ceeb yar teg ci yëpp ni mu àndee woon ak sëriñ Touba ñu fas yéene ñëw nag ci gannaaw bi nga xamee ne yàlla dogal na sëriñ Touba jógee ci géej gi 1902 bi mu jógee ci géej gi 1902 ba ñëw fi nga xam ne mooy fii nga xam ne mooy Daaru Minaan ci fi mu jaar ci réew mi fépp. dafa daa di woolu ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Moustapha ak ma du Fadal ak Cheikh Massamba muy gannaaw bi sëriñ bi ñu bisee ci géej gi ci atum 1902 bi mu ñëwee di wër ci biir réew mi muy barab yi mu jaar bi mu jógee Ndakaaru ñëwu Ndar ba jógee Ndar di ñëw jaar fi muy jaar ba ñëw Sanosi ba ñëw fi nga xam ne mooy dëru salaam ba ñëw Daaru Manaan comme foofu ñu leen ko wax maa ngi juum di wax Daaru Minaan daf leen woo daal fay nekk ak njaboot gi diirub juróom benn weer loolu mi ngi yemoon ak 1903 1903 boobu nag la jóge fi nga xamante ne si mooy Daaru Manaan ñu yóbbu ko fi nga xamante ne si mooy gànnaar ba mu demee gànnaar nag booba maam Thierno moom la dénkoon ñi nga xam ne mooy njaboot gi comme ba muy dem ci géej gi maam njaboot maam maam Thierno moom yi nag gannaaw bi moom moo jël njaboot gi yóbbu sëñ yóbbu leen ñu fekk sëriñ bi fi nga xam ne mooy gànnaar sëriñ Mouhamadul Moustapha ca la bokk ak ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Fadal ak ñuy wax sëñ Omar Mbacke ak sëriñ Madiba Sylla moom sëriñ Mouhamadul Moustapha ndax moom moo ko tàggul maam Thierno. ba mu jox ko ci ndigal mu yóbbaale ko foofa la sax boole kook jàng ak liggéey sëriñ bi tamit ba ñëwee gànnaar moo leen doon jàngal jàngalal boppam su ko ko jot gi mayee wala naar yi gànnaar yi nga xam ne moom leen daan booleel noona la ñu ànd ak sëñ bi ci barab yooyu yi nga xam ne fa la sëñ bi nekkoon muy Sarsara ak Jaraariya ak biirul xayri ak xumaat ñu nekk ca ba ci atum 1907 sëriñ jóge sëriñ ba jóge fa ñëw fi nga xam ne mooy ca jolof waaye laata ñuy ñëw foofu dañuy am ab taxaw seetlu foofu ci Cheikh Mamadou Moustapha li nekk ci moom lépp dañ ko cee def amul lenn luñ ko jox loo xam ne si jéeru ko ci ab coono ndax njàng moom yi mu jàng ci réew mi ba nga ci ñëpp xam-xam jàng na ko ci maam Thierno ak sëñ Mamor Diarra sëñ Tuubaa ko daal alxuraan sëñ daam Abdourahmaan loo ma ko jàngal alxuraan kon bi mu sëñ bi daata ñëw mokkal na lépp mën na lépp bi mu demee gànnaar dafa am xeeti xam-xam yu fa nekkoon yoo xam si amul woon ci biir Sénégal te dawuñu mën a dem gànnaar ñu bokk ci yoon wi yëpp dawuñu am dem gànnaar te amuñu ci digal sëñ te sëñ bi mosu faa yónni kenn wala mu yebal fa kenn boobi mu fi demee nag ci sabab bi nga xam ne moo tax yàlla wax ko ne ko boo demee Sénégal da nga fa toog nangami weer da nga dem gànnaar am na ciir yu ma fa maye woon yoo xam te seeni borom faatu nañ te ña leen sa doon mérité wuñ ko wala sàmmuñu ko te du ma maye di nangu boo dee ma teg la fay natt jël cër yooyu yëpp jox la gis ngeen histoire boobu ni mu guddee ba mu leen fa yóbboo it naari gànnaar yi xam-xam yooyu ñuy yoroon nag muy xam-xam nag yu doy waar yoo xam ne ku ko masaan peek rek da ngay raw ci àddina sëriñ bi gis ngeen moo leen daan jàngalal boppam ba mu leen fa indee te boole leen ak maam Thierno li ci des mu boole gànnaar yi. ba ñu jàng xam-xam boo xam ne si nag léegi moom kuy lu ñuy bind ñoo ci réew ñépp benn bi sëriñ bi di leen natt woo leen ca fa nga xamante ni sii mooy ci dëkk ba mu nekkoon daal leen di wan genn kees buñ duy ay téere ba mu fees téere xam-xam mu woo leen ne leen kees gii de téere yi ci nekk la ndeyjoor bi ak la fa bi laa bëgg arax bu ne na ci seen bët bi tegu gaaw gee fàtte gaaw gee mokkal ak bañ gee fàtte loolu man maa ko war warlu yéen yéen moom na ngeen ko yër rek loola moom sëñ bi defal na leen ci xaas joo xam ne tax na la ñu war a xam dañ koo xam foofu léegi nag ba xam-xam ba jeexee ba tey génn guñ gànnaar bu leen fàtte ne sëñ bi résidence surveillée la nekkoon jamono joojee tubaab yi biñ koy yóbbu sànk ko ak fexe ko nasaxal ba njàng mi muy jàngale du mën a jàll lislaam ji mën a fay njabootam tasaaroo moo taxoon ñu yóbbu ko fa waaye yàlla dogal na nag jamono joojee liggéey bi nga xam ne moom lañ ko daan liggéeyloo moom sëñ bi ci boppam tubaab yi leen ko liggéeyloo liggéey boobee ni ko Cheikh Mamadou Fadal nettalee dégg ngeen ko ba ci curi boobee nga xam ne moom la ko tubaab yi doon defar muy curi bi nga xam ne ay fasi naaru góor lañ fii dañ ci xam ne fasi tubaab yi la bi nag yaatuwaay bi kenn xamul ni mu ndax ay fas yu baree ci dem te foofa jëmtukaay yi ñu koy liggéeyee jafe yaa yaa biñ ko santee sëñ Tuubaa nag sëñ Mamadou Fadal wax na ne ñoo ko ne ko teg nañoo baaxee jox ñu ko ñu liggéey ko Serigne Touba daal di rafetlu loola ci ndigalal suñ borom waaye mu wax leen boole leen ak tubaab bi neen dem leen ànd ak moom mu wax leen nam ko bëggee ak fa mu ko bëggee ngeen defar ko sëñ Fallou dégg nga ni mu ko nettalee bi nu dikkee ba tubaab bi dërëdd dama ngi rëdd rek àll boo xam ne kenn xamul fu mu yem te boobam ngeer ak lépp jafe fi waaye bañ noppee rek ni ndimbalal yàlla ñoom ñooñee dañoo ànd ak donga yi ñoom ñooñu doomi sëñ Touba yi muy Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal dugg ci àll ba di gor lépp luy jumtukaay dikk samp tàmbali di rabb ba liggéey ko ci diir bu gàtt yàlla dogal mu àgg ñu ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko ah la nga nu wax dëgg yàlla mbàkke noppi na li moo tax ñu ñëw di la ko gaaral ci sëñ bu bég lool ndax ak njabootam a ko def te tarbiya ge foofu la tàmbalee moo tax mu daal di jóg ànd ak ñoom ba ñëw xool si liggéey bi ne leen ah tubaab bi de xuma la bëggoon am na ko nit waaye yéen li ngeen bëgg am ngeen ko defal na leen fa xaas joo xam ne ci coono ya nga xam ne am na ca gànnaar sëñ Modou Moustapha foofa daj na fa loo xam ne si kenn mësu koo daj ndax foofa daana takk ndigg li di liggéey daana daw ci service sëñ bi lu donga yi defee da ko daan def daana leen fa binduloo ay kaamil ñoom ñaar ñooñu day ak seen mbokk yooyu wax nañ ne kenn ku nekk bindal nga ci sa loxo bopp Sëriñ Touba ñaar fukki kaamil ak juróomi muy arafi Touba yu bokkut ak kaamil yi na dañ ko bokk bokkuloo ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett nag loola képp ku ko bind ci sa loxo nga jox ko sëñ tubaa sëñ tubaa alxuraan di wax ak moom te benn araf composé wul wala mu yëkkati kàddoom ne sëñ bi araf bi manqué na ñooñu am nañ maye gi suñu borom booba lëggee dong mën naa yenn yoon wi lépp jullit yépp mën leen yenn waxuma la yoonu mu def te loola bokk na ci li gën a tuuti ci seen liggéey te dañ ko daan boole xiif dañ ko daan boole ak mar xiif ba leen fa njëkk a fekk xiifum ñaar fukki fan wax nañ ne loo xam si sëñ bi nee leen lu cin di togg day wala lu ñuy sukkar day amu fi cere la leen daan jox jox juñ baraayu joj dafay yàgg lool te da ko daan jël def ko ci li nga xam ne mooy ab këll def ca bar ci loxo basaab ak xorom sotti ci ndox cere ji day yàgg ba dey xur ni ko sëñ am sa jaxate ne tey teg ko ci jànj ñuy wéy nag di jàng ak di bind ak di liggéey bu tisbaar jotee ñu julli bu takkusaan jotee ñu julli bañ julee saan ba pare nag la sëñ bi woolu nag ne indil leen ma këll bee ma defoon ndox mi teg ko ci jàjj ba bu dikkee mu jox leen ne léegi nag lii kat bu ko fi lu ko daq boo ko amoon nit ma jox leen ko waaye nag sëñ borom xamal ne ma nag loolu amu fi kon nag jël leen ci lii waaye lii nag am na lu ci nekk ci xéewal goo xam ne si yeneen ñam boo ko dàqoo leen mënu ci am te danaa leen ko wax bañ sukkee ba nga xam ne ñoom ñëpp war nañoo ak sëñ bi dikk ne xaar ma ñëw bokk ak yéen bokk gii may bokk ak yéen ñam bi nag dafa am lu ma leen ci bëgg wax loo xam ne si li ci nekk ci xéewal ku doon jeex fii ba a Munawwara doo ko gis mukk ci xéewal yi dàq yooyu mu yoor gii ma yoor ak yéen képp koo xam ne ëllëg yoorandaan ak yéen ñii ma bokkal ba ñooña it am ñu yoor ak ñoom ñooña am ñu yoor ak ñoom muy dem di dem ba barsaq képp koo xam ne si ba def bokk nga ca ñooña ba ëllëgee suñ borom dañ la jéggal say bàkkaar wax nañ ne xiifum ñaar fukki fan boobee sëñ Ibrahima Sarr Diagne gutoon na lu man ñaari gëléem sëf ko lépp lu ñuy jëfandikoo lu mel ne suukar lu mel ne muraake ak ya ci aju ak attaaya yooye yëpp mu def ko ci ak ay yére yoo xam si moom lañuy sol ak i satala ak i sajaada yónnee ko Serigne Touba fi nga xam ne mooy gànnaar bañ ndikkee ba gëlëm yi yës ñoom ñooñu ba ñu liggéeyee ba ñëw fekk gëléem yi toog yës ngis la ci nekk lañ daal di naw sëñ Ibrahima Sarr ne alhamdulilahi ah yàlla dikk na Ibrahima Sarr Ndiaye mii rey pas-pas bii mu def ak fii munu fekk ci xiif ak mar ak rafle daanu lekk daanu naan daanu solo bég lool waaye ba leen Sëriñ Tuubaa woo leen bopp boppam ba ñëw mu dikk na leen gëléemi Ibrahima Sarr Ndiaye yooyu ngeen gis mbaa defu leen ci seen xew ñoom ñëpp seen yaram dafa fas ñu ne àddina tukki na ñun defoon nañ ne moom lii mooy tuddee solution mu ne loolee de suñ borom xamal ne ma pas-pas ba Ibrahima saar Ndiaye am ba def ko bi mu koy indi suñ borom xamal na man seeni borom ñi ko war a jëfandikoo waaye du yéen ñii kon nag dellu leen cay liggéey ba te doyloo yàlla te wakkiirlu yàlla ñu delloo ci ñoomeen ak ndigal fekk naari ganaar yi toog sëñ bi jël lépp séddale leen ko ñu continué waat seenu muñ ak seenu liggéey ak bëgg sëñ tubaat nangu ko la jël sëñ Modou Moussa ci la bokk ba ñu demee ca loola ba ca ëllëg sa sëñ Ibrahima Fall yónnee fa juróom-ñaari gëléem yu mel ne gëléem yi sëñ Ibrahima Sarr Njaañ yooya sëfu la mu sëfoon biñ dikkee ba yës sëriñ bi woo leen ba ñëw ne leen gis ngeen gëlëm yee ñu ne ko waaw gis ngeen lim sëfa ñu ne ko waaw mu ne waaw gëlëm yi moom tey moom suñu borom xamal ne maanaam loolu yépp ci yéen la jëm waaye gëlëm yi Ibrahima Sarr Diagne yee bu ngeen ca laaloon dara lu tuut tuut waxuma la juróom-ñaari gëléem waaye genn gëlëm dong di ngeen ko fi gis te loola ci biir xiif booba la loola ca gànnaar la bi nga xamee ne yàlla dogal na nag sëriñ bi ànd ak ñoom ca coono yooyee ba yàlla dogal mu war a ñibbisi nag fi nga xam ne nag mooy ci réew mi bi muy ñëw ba agsi ñëw ci yéen jolof foofu nag bi mu dikkee coono ya njàngamaag yooyu yëpp daf leen ko teggil am weneen yoon wu leen bëgg a teg nag woo xam ne si tey jii mu indi mu gi muy nag fexee jariñu ci moom te doo ko jariñoo ci moom ci ak juddu wala ak bokk muy loo xam ne si dafay jóge ci yàlla te mooy la saxaaba yi jaayante woon ca taatu garab ga ci yoon bi sallallahu alayhi wasallam ba ñuy jaayante loolee nag tey moom la Serigne Touba wax woo leen ba ñëw mu xamal leen ne leen suñu borom xamal ne man ne liggéey bii may am kenn mënu cee jariñoo te joxe woo sa bopp ak juddu mënu cee maye dara mbokk mënu cee maye dara ak jege ñaale mënu cee maye dara sëñ Fallou lu ko lan nañuy def ba mën cee am mu ne ko jaayante rek bàyyi xatu ritwaan boobu rek waaw jaayante sëñ Fallou nag ne alhamdulilah bañ ko xamee fekk laata loola di am. Cheikh Mamadou Moustapha mii ñetteel bi turam foofa la ko amee ndax foofa it ba mu demee nam doon def gànnaar lay def rek takk ndigg li saqal bopp bi nga xam ne buñ koy gisee njañ li day day mën na ca yanu dara te du laal bopp bi du laal deru bopp bi lu foofa la turu njañ bi cosaanoo ñi xamul njañ benn bis nag sëñ Tuubaa woo ko ba mu ñëw ne loo jublu ci lii mu ne ko ah bëgg nu rub taalibe dong de mu ne ko yow de doxloowuñ la ci lii boo xëyee demee nanga wat bopp bi te xay te xam na yow ci ak nita lañ la doxloo loola nag tax na mu wax ne képp ku mas a ànd ak sëñ Touba loo fi liggéey ba seex maa yow a ko bokk ba noppi ma rawale li ma sëñ Touba ndax mag ñi booba xamuñu woon na doomi sëñ Touba ndax der daan takk ak moo tax mu ne lu fi waay liggéey ba seex maa ngi ko bokk ndax ma nga woon ci liggéey ba ma nga woon ci mbindum kaamil ma nga woon ca sàkket ya ma nga woon ci curi ba lu fi waaye di def rek sëñ Modou Moussa bokk ak yow keroog la ko sëñ Touba teggil nag léegi nag loola tax mu tàmbali nag di ànd ak sëñ Touba nag ci ak bëggam taq ci moom lu mu xam ne sëñ bi bëgg na ko tam man ko rek mu daal di nekk ca loola. léegi nag euh, bi nga xamee ne yàlla dogal na jaar jaar booba mu nekk ca ba nga xamee ne nag sëriñ bi jóge na fa ba ñëw ci yéen Jolof. te tubaab bi andi woon ko fa comme ni leen ko waxee woon nag mu nekk fa ak ñoom mat na ñeenti at yoo xam ne sii ma nga fa nekk ak ñoom bañ fa nekkee nag lañ doon def rek mooy comme lii ma leen wax rek jàng lañ doon def ak tarbiya wu tarbiya gi mooy lii ma leen nettali léegi nekk ay taalibe doon def li nga xam ne moom la taalibe yi def muy sëqal bopp bi ak takk der gi ak solum naawal sëriñ mu Amadou Moustapha foofa la jëlee turu njañu mooy li ma leen waxoon rek sëriñ bi xëy woo ko digal ko mu dindi loolu lépp te xëy gannaaw ba mu ko laajee nag comme li ñu leen waxoon léegi rek lam ci jublu mu ne ko bëgg a nuru ak bi mu ne ko yow ci ak nite lañ la doxloo moom lañ la fàggul daal muy foofee nga xam ne mooy Ceyeen Jolof nga xam ne diggante Daaru Rahman ak Daarul Xuddoos mooy diggante ñaari kër yooyu diggante boobu nag lu bari xew na fa ci diggante Serigne Touba ak sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke ci taxawaay bi nga xam ne woon na ko sëriñ bi ci ni nga xam ne moom la war a nekk ci moom ci nit ñi nga xam ne ñoom ñooy dikkal sëñ bi nga xam ne bu ñuy dikk ci maanaka mooy nekk ci bunt bi comme li ngeen waxee woon nekkatul di. takki naa wala dara sëñ bi da koo doon doxloo cig nit nga xam ne ñii ñëw ci sëñ bi daan ko fa dikkal ci moom la ñuy jaare nga xam ne moo daan dox itte yi ba ñu àggee nag ba ci atum 1909 la sëriñ bi xëy daa di woolu ñi nga xam ne ñooy njabootu soxna Aminta Mbàkke mi bokk ak maam na Ndeye ak Baye ak sëñ Abdourahmane Lo mi ko joxoon njaboot ya ñu amoon foofee ci Thiène Jolof la leen sëñ bi woo ñu indi leen Thiène Jolof mu ganale leen lu toll ci juróom ñetti fan daal di leen di woone leen yéen ba may nekk dëru ma naan daa ngeen ma fa fekk waaye nag su ngeen masaan ñëw ci jamono jooju guddi lay doon xàmmeewu ma leen woon xàmmeewu xàmmeewu leen ndax guddi ngeen fa daan ñëw xàmmeewu ma leen woon ana ko ci mag ci yéen ñu ne ko ah soxna Faati Lo mii de moo ci mag mu daal ne nañ ko fasal ki nga xam ne moom la ñuy wax sëñ Omar Fall Mbàkke sëñ Amar Fall Mbacke mi nga xamante ne si doom yi sëñ Mbacke Kajoor la bokk ak sëñ Amar Mbacke gelongal ndey ak baay pend bu yee jóob jur leen ñu daal ko koy fasal muy soxna Faati Lo mu ne ku ci topp ñu ne ko Aminta mii de moo ci topp mu ne nañ ko fasal ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadou Moustapha mii kooku ñu ko fasal nag euh, muy soxna Aminta Lo moo jur sañ Mbacke Madina ak soxna Marema bintu Moustapha mi ñu joxoon sëñ Bay Fallou mu jur sëñ Cheikh Mariam ñu nekk ko ci topp mu ne ah Isatuloo mii de moo ci topp mu ne nañu ko fasal Mouhamadou Fadal moo jur soxna Mbène Fallu yaakaar naa bu jumul ak sëñ Modou Mamoun mu ne sëñ bi daal di dindi lu toll ci juróom benni téeméer muy seen ak can ca fan yooyee nag la sëriñ bi woolu sëñ Omar Mbàkke gelongel mi nga xam ne moom maa nga fa woon ne ko sa gaa yi day am na lu ma leen defal muy dencal naa leen ay soxna yow nag li ma lay yoo laaj ma Kunte mii wala Faati Mbàkke mii muy sama doom yooyu seetal koo xam ne si yow bëgg nga ko rek ma denc ma fasal la ko waaye sëñ Omar Mbàkke te nga ne ko man dey ku ma seetaloon ci tër bii sëriñ bi ne ko sama doom yi ñoo la wax ne ñoom duñ ay taalibe wala man maa la ko wax walla man maa la wax ne na duñ ay taalibe mu ne ko maa ngi tuub sëriñ bi ne ko ah mat na ko de kooka lañ ko fasal waaye dafa ne ko xaaral ma laaj sama borom ba xam lu ma ci wax waaye bi mu duggee ci biir néeg bi génn la na ko sama borom nee na Faati Mbàkke mii Faati Mbàkke moomu nag doomi Ibra Penda Buya la Ibra Penda Buya moomee Penda Buya Jóob moom sañ kokki njaga isaa jur ci uramadi yu nag moom ñoom la dëkk ñoom ñoom ay tukkuloon lañ moo jur kii ñuy wax sëñ Moodu Mbàkke gelongal mooy soxna Faati Mbàkke moomu Sëriñ Tuubaa am ak Penda Buya ba moomee nga xam ne doomi Ibra Penda Buya la mu ci la am soxna Faati Mbàkke mi ñu daal di koy fasal ñu sax foofa bañ saxee foofa ci sëriñ bi nag sëriñ Mouhamadou Moustapha sëriñ bi nag di ko doxloo ay itte ci biir ci biir réew mi di ko yónni fu nekk yónni na ko fi Kajoor yónni na ko fi mu wër réew mi ba mu dellusee nag la ko sëriñ bi defal ab dénkaane dénkaane boo xam ne si mi ngi tudd tamxiir tamxiir boobu nag muy ak dénk koo xam ne si dénk ko xel la gu yéeme mooy xam ne si ci ak xasida la ko bind xam naa nag bu nu jàngee dénkaane bi ba pare insha allah la ñuy yemale ñetteelu waxtaan wi ba sóobu ci li nga xam ne mooy ñeenteelu waxtaan bi sëñ bi bi mu ko dénkee dénkaane bi dana ko laa tan sa ni yatan ladda kulli la yat fa innaha tajlubu afdal ayat addim qiyaamal layli doonal kasal wa bi tilaawati fu doolal axsali wa danasil xaybati naqi bi sukkur wa sikra rabbika wa sikra rabbikal mukarrami sukkur waaye mu teg ci na ko wan wi li nafsika xuyuru wali man ara ay taxoo yatlubuha kullu saman wa fii la siina yarda ilaakal arxab wa han siwaaka maa laysa yurdihi arxab dénkaane bii la fa bon teg ko ci kanamam fas yéene jàppale Serigne Touba. ci li nga xamante ne si mooy liggéey bi ci liggéey bi nga xam ne moom la somp kon mbokk yi xam naa dañuy taxaw foofu incha allah sunu demee ci ñeenteelu waaj waxtaan wi rek incha allah ñu gën ci xuus ndax dañ ko bëgg a def ndànk-ndànk ba man ko faram fàcce leeral ko ngir wax leen ne sëñ Modou Sa ku ñu sol la ku ñu waajal la waaye koo xam si sëñ bi moo bokk ci pàgguteefam mu yàlla boole ko ak moom ngir mu mën ko taxawu ci li nga xam ne mooy gannaawam kon mbokk yi in uriidu a islaaha ma stata'tu wa ma tawfiiqi illaa billaahi alayhi tawakkaltu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ke balla mo sunu ndaya di baay di màgge di maamo yaa dipp sër yaa doonu mbër ma daamo waawaa màgge bala Moodu Musa yaay sunu lay di baay di màgge di maamo yaa dipp sër yaa doonu mbër ma daamo Mbakke Balla Moodu Mustafa yaay sunu nday di baay ji mag di maamu yaa dipp sëriñ yaa doon mbër ma daamoo di baay Mbakke Balla Seexu Moodu Mustafa yaay sunu nday di baay ji mag di maamu yaa dipp sëriñ ya dundu barma daamoo di baa di mag di maamoo di sëriñ gaay sunu nday di baa di mag di maamoo ya di pu sëriñ ya dundu barma daamoo waawaa ba kembala Ahmadu Mutaay sunu nday di baaji mag di maamoo yaa di bu sëriñ yaa ma daamoo